ginnaaw bi ñu jéggalante rëcc rëcc yi dox suñu diggante suñu moroom delli di ndokkeel bu baax ci bis bu màgg bi waaye rawatina weeru màgg bi fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin di ñaan yàlla mboolem jaamu yàlla gu ñu fi def rekk yàlla nañu ko yàlla nangul waaye itam fulal ñu ko bi jaay saydu wujju sallallahu alayhi wa di jiital ci nuyoo yi ak ziyaaraat kilifa kër gi muy Cerno Xaamidu Baan fa tabaarakallaahu ak mbokkam yu baax yi nga xamante ne ñoom la bokk seqal liggéey bi ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara fa tabaarakallaahu ajaa ñuma ba waaye tam ak ñi nga xamante ne ñoom la boole yilif ñoom ñépp ñu ngi leen di ziyaara bu baax jël nuyoo ak ziyaaraat yi teg ko ci loxal oustaz alxaaji abdallahi njaay fa tabaarakallaahu mu tegal ñu ko ci loxal suñu imam bu baax di alxaaji musa géy fa tabaarakallaahu mu wesaaren ñu ko ci mboolem asaatisa boo xamante ni yaa ngi yeewoo fii ci biir kër gi muy safina tv fa tabaarakallaahu asanul xaalihin auditeur auditrice bàyyiwuñu kenn fa tabaarakallaahu di ziyaara suñu wóllëre ñu soppee soxna Faat Sa Sooqa ca amoo siis ak borom këram di Mouhamadou Jara ñu ngi koy ziyaara bu baax ak njaboot gi ñu kenn Mouhamadou Jara Papi Jara fa tabaarakallaahu Zeynab ba ci ñoom maki ñoom ñëpp bàwuñ kenn fa tabaarakallaahu waaye noonu la ñuy ziyaarate Adja Ndey Guèye fa tabaarakallaahu ak borom këram Euh, sëriñ Babacar Diaham ak soxnaam di soxna Faat Ndaw ñu ngi koy ziyaara bu baax Adja Ami Thiaw ca amoo kat moom it ñu ngi koy ziyaara ak boroom këram waaye noonu la ñuy itam euh, soxna Faama Ndiaye ak borom këram di sëriñ Ibrahima Mbay mu tegal ñu ko ci loxal imaam jonn fa tabaarakallaahu mu wesaaral ñu ko ci mboolem a ima yi nga xamante ne ñoo bokk nekk foofu yépp ci amo 5 ñu ngi leen di ziara di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk tawfiq bi jaay say wuju salaa alei wasalam mbokki saam ndiaay bàyyiwuñu kenn teg ko ci loxal imam cheikh omar ndiaay mu wesaaral ñu ko ci mboolem ku fay yéewoo waaye naka noonu itam ni lañ koy tege ci loxal xasan gëy ci yoof mu demaalil ñi géew mboolem ku fay yéewoo waa bitim réew bàyyiwuñu kenn ñu teg ko ci loxal pàppalo mu demaalil ñu géew ak rakkam ju baax jooji di Maodo Lo ak euh, Serigne Moustapha Gange ñu ngi koy ziyaara Mouhamadou Ndiaye Gabon Mouhamadou Ndiaye Niger ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn Abdoul Aziz Arabi Saoudi ñu ngi koy ziyaara ñoom ñëpp fa tabarakallahu mboolem ñi fiite bitim réew bàyyiwuñ kenn fa tabarakallah ah seen émission ni ñu ko baaxoo def rek muy at tazkira ni la ñu fas yéene àndaat ak yéen euh, ci baatu li nga xamante ne moom la ëmb ndax itam euh, li mu ëmb rek mooy fàttalil ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo demee ci biir alxuraanul karim alxuraan du deñ di ko wax na ngay fàttali ndax fàttali yi amaana boo fàttalee ka fàtte woon dana ci mën a jariñu fa tabaarakallahu yàlla di ci wax ay yoon yu baree baree bari fa tabaarakallah waaye lool lépp itam ñi jël cëslaali lépp itam dal di koy fiitale jagleele ko itam lii di téere borom bi subhaanahu wa taala muy alquraanul karim moom mi nga xamante ni eh, amul lenn loo xamante ni jaam bi dana ko soxla dana ko aajowoo ci mbiri àddunaam te lu dul bu demee ci biir alquran dana fa fekk solution kon mu doon loo xamante ni euh, jaam bi moom pour mu dem ak dundam mën a normal mu bàyyi fi alquran loolu moom mënta nekk wante alxuraan moom euh, wax la joo xamante ne ju mat la buñ ko fi bàyyee dute mission moom dox na ko te mu ngi koy dox ku bëgg itam ànd ak moom ci dox loolu le waaye tey Euh, njariñ li mooy ci jaam bi ndax moom dana ko appliquer wala déet foofu la mbir mi nekk moo tax yàlla xool ne mboolem loo xamante ne rek jaam bi dana ko aajowoo soxla ko fii ci àdduna bi nee buñ demee ci biir alxuraan rek danañu ko fa fekk moo tax ñi ciy fàttalante jël cëslaay li teg ko muy téere borom bi subhaanahu wa taala waaye tam ak xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xamante ne moo ñu koy jàngal waaye tam xamal ñu ko yàlla wàcce ko ci moom waaye wàcce ko ci langage bi nga xamante ne moom la doon làkk di langue arabe fa tabaarakallaahu nga xam ne yàlla langue yépp la dégg fa tabaarakallah waaye bu ñëwee ba tànn bi ñëw jël ngëneenul alquran def ko ci ah, moo lay wane ne loolu tànneefu borom bi la subhanahu wa wàcce ko ci suñu yonentu boobu di muhammad sallallahu alayhi wa waaye jaarale ko ci làmmiñu jibril alayhi salaam ak ñi nga xamante ne ñoom eh, la daan àndal ci ay malaa'ika si buy wàccee lu ci mel ni ay lennat ci ay saar wala lennat ci ay aaya tabaarakallahu am solo gi nga xamante ne saar yooyu walla aaya yooyu am na ko màgg na ko ba tax eh, malaaka yooyu ñëw ànd ak jibril ngir di ko gunge loolu doonul lu tuuti waaw ah, donte la yëpp ci alxuraan yëpp ci yàlla la jóge waaw ah, aaya teewul am na ci ay ngëneen yoo xamante ni yàlla day joxe ndigal eh, tant ci limu malaayika ànd ak jibril ngir wàcce saar boobu wala aaya boobu waaw ah, loolu nag ngëneelu yàlla la du caagin nag ya ca des euh, bu ñu amul ku leen gunge ba ko jibril di indi du caagin ne yàlla da leen a desal ginnaaw déedéet waaye wa annal fadla bi yadillah yutihi man yasa moom mu ci loxol yàlla te moom mooy xool ku ko neex ku ko soob itam ah, fa tabaarakallaahu mu dal di ko koy jox fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin Euh, suñu point bi ñu mujjé woné tej jotaay bi ñi ngi doon nekk ci màggaay bi ak euh, am solo gi nga xamante ne am na ko solo ba doomu aadama bi bu taqee du ko laal muy ko am sobe saa yu amee sobe rek alquran ji bala mu koy jige dafa war a dem laablu ji ba set wecc door a ñëw mën a jigee alquran joojule moo tax ñi ci doon joxe ay misaal ba ñëwoon ci Omar ibn Xataab yi radiyallahu anhu ci taxawaayam bu am solo boobu ak ba nga xamante ni ci la doon dugg ci islaam avant la ca xew nga xam ne booba duggagu ci mu ngi ame sobe bëgg koo laal waaye mbokkam moomu xamal ko ne ko lii ku laabul du ko laal te yow laabu ca la ko wax ni ñuy laabe mu tegtal ko nañuy laabe mu def ko waaye itam gëm ne yàlla yàlla ku dul yàlla du yàlla gëm ne rasulullah salaam yàllaa ko yoon waaw moo ba mu defee loola nag ah, jël téere ba jàng ngëm yàlla gu dugg ca moom ca la dem ca rasulullah salaay salaam ca daaral arqam nga nga xamante ne fa lañ nekkoon di làqatu di julli di làqatu di jàng seen biri diine ngir néew gi doole fa tabaarakallaahu la ko xamal ne ko comme li ngay woote bu fekkee ni bii dëgg la ci yàlla la jóge nëbbatu gi moom daanaka dootu ko jarati ca lañ tàmbalee di génn nag di dem di wesaare muy mu tàmbalee di tasaaroo ndax kat lor-lor ga nga xamante ne doon nañ ko ragal ci e, waa Màkka mbir ay fitna yuñ leen di teg fa tabaarakallaahu ba Omar ibn Xataab bi du gisee ñoom seen xel dafa dal di dal moo tax mu xamal leen ne bu dee lii daal dëgg la nëbbatu gi moom du ko jar ca lañu génne noonu jëm ca kaaba ga mu jiitu moom omar gaañe topp ca ca la doon wax naan jigéen ju ci bëgg doon ab jëtur rek na nga ñëw dogaale ma wala baay bu bëgg def say doom ay jirim rek na nga ñëw dogaale ma te xam nañ kàttan nga nga xamante ne moom la amee woon ak force bi nga xam ne amee woon na ko ak dëgg gi nga xam ne ame woon na ko ak doole ji nga xam ne ame woon na ko fa tabaarakallahu moo waral kenn ku ci nekk boo génnee rek seen omar muy tudd baati seede yooyu nga la ngay njëkk a wax rek mooy tuskare nañ kii de moom wooteem bi dina jàll ndax ku amee doole ni omar ñëw dugg ci moom moo waral mu amu fit di génn sax di di wax naan yàllaa ma yónni fa tabaarakallaa sonul xaalixiin moo tax yooyu yépp am ak farloom moom moo ko may loolu waaye ànd ak loolu itam dëggu ci li nga xamante ne moom la nekk mu leer ko ne lii mooy dëgg ku ci faatu itam aljana nga jëm waaw mu jaral la sa bakkan fa tabaarakallaa sanul xaalixiin kon kenn ku ci nekk war nga ci def eh, jàngat ca eh, jikko ji nga xamante ne yàlla defal na ko te li ci ëpp itam mu doon farlu goo xamante ni ci boppam la jóge eh, yàlla mooñaale ko loolu itam moo tax mbokkam ma waxoon ko ne ko yow kat eh, ñaan gi yenent bi alayhi salatu wasalaam ñaanoon dafa mel ni moo ñëwoon ci yow waaw ndax déggoon naa ko démb muy ñaan ne yàlla maa ngi lay ñaan ñaari omar yi yàlla na nga ci eh, baaxe islaam kenn ci omar yooyu le moo tax ba yàlla nangoo ñaan ga malaakama ba muy ñëw di andi si ngëm yàlla ga dafa fekkoon ñaari omar yooyu mu doon ñaan kenn ci ñoom fekk leen ñi tëdd ci taatu garab waaw muy omar ibn xataab ak euh, omar bi ci des fa tabaarakallaa euh, mu fekk ko mu dëpp dëpp Omar ibn Xataab dal di defeendu waaw waaw tax bu mu ñëwee yor koppu ngëm yàlla gi fekk ñaari kopp muy ñaari ndab te benn la ci war a def ñëw fekk benn ndab li dëpp ñëw fekk bi ci des taaju mu ne du jël leer gi di ko sotti ci ndab li dëpp ndax amul fu mu taajowoo waaye bi nga xamante ni moo ubbeeku foofu la koy teg tabaarakallahu fa lay yëkkatee ngëm yàlla googu sol ko ci ndabul Omar ibn Xataabi radiyallahu anhu fa tabarakallahu ba ca lu doxe dal e, gëm yàlla foofu itam da nga fi jàngate si wàll e, comme jullit bi e, ci wàllu tëraayam ak yu ci mel ni ki yooyu buy tëdd bu ko mënee def ko tey ndey jooram muy ba ca gën waaw bu ca toqee def càmmoñ ba noonu waaw itam bu ko man it def dal di jaaxaan moo gën muy defeenu di di dëpp waaw ah, ngir leer yooyu mën a ñëw dal ci moom ala kulli xaal kon yooyu yëpp ay jàngat la waaye ànd ak nag cofeelu nammeelu yàlla subhanahu wa ndax bu ko neexoon itam eh, mu def ko ca bane noomar ba bu ko neexoon itam mu mu mu bàyyi leen ñoom ñëpp bañ leen a dugal ci eh, diine ji ci kenn kooku mu tànn dugal ko ci muy Omar ibn Xataab radiyallahu anhu waaye gis nga pas ak taxawaayam rek eh, lu am solo la ci eh, diine ji ba bari na ci yu bari yoo xamante ni eh, dindi ko ci pénc mi boo xamante ni yii bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dund ci la ko doon def yeneen taxawaay itam bi nga xamante ne dem na ba yor xilaafa gi ci la ko doon dund mu doon taxawaay yoo xam ne yu ama am solo la bokk na ci rekk eh, alxuraan di wàcc ñëw omar wax rasulullah salaa salaam wax alxuraan ñëw wàcc ñëw ànd ak omar waaw loolu rekk ngëneel ngëneel la ci ci misaal la ci la mu siy jàngat rekk mooy lan léeg-léeg bu benn wax dikkee mu laaj rasulullah sallallahu alayhi wa laaj lii ba xam sa gis-gisu bopp la walla aaya la bu wàcc wala saar bu wàcc bu jóge ci borom bi subhanahu wa taala waaw ah, bu ko defee bu koy yonent bi alayhi salaatu salaam waxee ne lii aaya la bu jóge ci yàlla muy alquran bu boobaa Omar danaan kaan loolu moom amul xool xalaat amul def dara amul diisoo amul def dara moom dal di appliquer rek muy jëfandikoo waaw mais nee na bu yonte bi alayhi salaatu salaam àddoo léeg-léeg ci benn mbir euh, mu laaj ko ne ko waa loolu ndax wax yu la gu jóge ci yàlla am ci yow la jóge muy yaa ko wax yonent bi xamal na ko ne du wax yu doonte la moom wa du waxee ci bànneexu bakkenam lu mu wax rek yàlla ko wax yu mu ne ko liikat man maa ko liiwal sama bopp bu boobaa itam mu ne ko kon yaa ko xalaatal sa bopp ñun itam am nañ ci xalaat léegi ñu nit bàyyi ñu xalaat ci te bu alxuraan ñëwee àddu ñëw ànd ak Omar ca waxam joojule kon yooyu yëpp ay misaal la ci wane ne boo xasee nekk ci dëggu rek dëggu googu moom lañ la xamee nga góor góorlu si nekk ci xam ne dëgg mooy njëkk waaye itam dëgg itam mooy li nga xamante ni moo dal di mujj kon bu ko defee rek mbokk mi mu ngi ñuy junj di xamal ni euh, li ñuy dese ci waxtu yi daanaka euh, mat na Ah, duñu def rek lu muy tënku ko foofu rek ba baneen yoon di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp ci daraja yenenti bi alayhi salatu wassalaam yàlla man na ko sañ na ko yàll nañu ko yàlla defal bi jaay saydu wujud salallahu alayhi wasallam di nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp fa tabaarakallah yàll na yàlla yokku sutura zahiran wa batinan bàyyiwuñu kenn comme ni ñu ko tàmbalee woon rek seen bokk libaas jeen moo nekkoon ci waxukaay bi di leen jéggulu xam ne lu jub ci wax ji rek ñu xam ne mbaaxu yàlla la lu ci dëng rek matadik doomu aadama ñu ngi leen koy jéggulu ginnaaw bi ñu ko jéggaloo borom bi subhanahu wa taala wa axiru daawaana alhamdulilah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu thank you